bi ñu dugg tuuti ci combat bi ku ne xam ne sa diggante ak Modou Lo noo gisee combat am beeg Eumeu que duñu wax ci làmb bi ci ci ci ndogu bi rek. <laughs> may tuuti ndax combat bi ñu bëri dañ ne mooy mooy favori bi daal dañ ko jox Eumeu Sène ndax défaite bi Modou jóge noo gisee lool waaw mais Modou moom yaakaar naa combat yi mu bëri ñu jox ko favori bëriwul de bu dee ngeen seetaan Modou. ñun moom loolu miis nañ ko quoi xam nga. mais bii dafa am enjeu parce que moom dafa jóge ci défaite te Eumeu Sène ku ne xam na ne roi bi la yor te roi bi Eumeu nee na moom du ko ñàkkee noonu. xanaa ci yéen la am enjeu yéen yéenay tiit xanaa Modou tiitul de. amul enjeu de combat yi ni mu doon préparé combat noonu lay préparé combat bi incha allah bëree xel bu dal ñaan yàlla mi nga xamante ne ma may ndam ci barki weeru koor mu may ñu ndam bu set wicc te gën ci ñun. Modou ban état d'esprit instant bi lay préparé combat bi ndax euh, combat bi amul pression bi diisul ci moom ak yéen ñi nga xamante ne yéen a ko jege ndax pression bi méttiwul. Noor bu demee bay am pression ci làmb dootuñu ànd ak moom ci làmb ci leneen la ñuy ànd ak moom mais pas ci làmb. deew ci am correction dépassé na loolu mu tollatul niveau boobu sax ay ñoom serpent noir yi sax xanaa bu ñu bëri duñu am correction waxtu ma laa Modou merci beaucoup Papis ñoo far